El Hadj Ahmed Aïdara. bismillah. waa ana Cheikh Béthio Thioune tribune yéene kay ne Cheikh Béthio day génnee nañ ko kan ca kaso ca Thiès de ah, ca boppam waaw ne xam naa ni daal indi nañ ko ci Ndakaaru gilee waaye ay avocat am yëguñu juge bañ dénk dossier ba kon yëgul xamuñu daal maanaam fan la ñu yóbbu kon Cheikh ba doomu Cheikh Béthio ba yemu ca ndaxte nee na ni mi ku nañ ne wàllum kumba am ndey ak kumba amul ndey la ñu ku kon ci wàllum justice su réew lee te Cheikh Béthio Thioune kon dem ca diwaanu France ke daal di kon faju ji waaw provisoire daal di ko koy lankal la ma nimiku daal mooy wàllum acharnement rek xaxar rek jëmale kon ci kaw seex bi Magomed Diagne cuun nga yemu ca ndaxte nee na ñun ñëpp danañu dem kon fekk seex bee ca kon ca kaso ba bu dee ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite nii continuer nañ kon di doxalee nii ci wàllum dossier seex Béthio bi maanaam kon di def lu leen neex ma ne coow li mooy ana seex Béthio fan la ñu ko yóbbu enquête yéene kay ne seex Béthio cuun day indi nañu ko dëgg la rëbës kay la ñu ko indi la populaire ne dëgg la kay Serigne Saliou cuun gël tàppe taaw ñoo ëpp nag tuuru trop c'est trop ñii daal la ñu bëgg daal mooy toroxal sama baay bi daal di koy humilier waaye na leen leer ne nag ñun ñëpp pare nañu kon ngir fekk Cheikh Béthio Thioune ca kaso ba waaw waaw maître Ousmane Seye avocat wu Cheikh Béthio Thioune ci le populaire ne lii daal du daal lu dul kidnapping la Cheikh Béthio dañu koo kidnappé ndar képp ko siif ko jël ko yóbbu ko te guddi nag maanaam la ñu ko def te ay avocat am yëguñu njabootam yëguñu juge ba ñu denk dossier ba juge d'instruction ba yëgul procureur baa nga màkka yëgul tiñul Serigne Saliou Gueule Tapée mooy taaw Cheikh Béthio nee sama papa daal daa feebar te attention attention footballu Sénégal bi daa feebar le pays au quotidien ne El Hadj Diouf ak Bouna Koundoul ah danañ leen déglu de ci coow li nga xam ni kon moo am samedi ca stade Léopold Sédar Senghor maître Augustin Senghor moom gëm na ne am na ñenn ñoo xam ni kon dañoo ñëwoon ca stade ba te dara taxu leen fa woon a lu dul def kon lu bon kese ay personne mal intentionnées ah waaw parce que coow li nga xam ne nag maanaam moo amoon ca stade ba ma nga door ca buntu hôtel Radisson Blu la ilaha illallah ba cortège su gaynde foofee la leen cortège El Hadj Diouf Zor bloqué maître Augustin Senghor mooy wax samay kàddu de président fédération ne te ni mel nag la ñu nimmi ko encore ca VDN ba cortège su gaynde cortège su El Hadj Diouf daal di koy bloqué danañu nag porter plainte kon ala xam contre x la réew mi quotidien ne Augustin Senghor kay daa tuumal ba pare sax fa seen porter plainte kon kii di El Hadj Diouf info ne waa fédération sénégalaise bu football tey El daal la ñu jàppee ne ab provocateur la da ak di leen cokkaas birima ci tribune yéene Mm. neexul ba neexul mais El Hadj Diouf moo am doole barke Rasuul laay bu dee El Hadj Diouf Sow la ñu njort ne kon moo taal stade Léopold Sédar Senghor <laughs> El Hadj Diouf a ngeeg doole El Hadj Diouf a ngeeg doole bu dee mennum El Hadj Diouf kese moo taal stade Léopold Sédar Senghor noo ne ah <laughs> ayaa bi mbang sa tala kurus ma ne fédération sénégalaise bu football fa ñu làmb nooyul nañ làmbi feneen ah baaxul ñoom ñi ngi dénk bi fi mu nekk nii gàttal yoon wi kon la ñu bëgg a def seet fu gën a nooy bëgg fa jaar ngir jéem koo taafantaloo mitit gi nga xam ne xóot na genn xeetu xóot koo xam ne kon maar day taali bu dee gayndey dañoo lajj ba la jaanoo daanu ba ndetteeral gën a indi fédération xaalisu football bi la waaw waaw ñoom ñi nga xam ne kon defuñu la leen war ñoo lajj fépp sax ci jaar jaaru gayndey ci segg gi nga xam ne kon ñu ngi koy segg équipe ya war a dem kon ca coupe d'Afrique ba waaw waaw éliminatoire yi fédération bi ci boppam kon moo ca échoué lajj ca fépp ñoo deful seenu liggéey yéene kaay gi ne ñaata yoon lañ fi waxtaanee entraîneur bi de Joseph Koto ay na wala ayul moom it mu nekk fi moom Koto di jéem a kon lambatu ak a taf yëngal maître Augustin Senghor saay bu ñu waxee lu jëm ci Joseph Koto maître Augustin Senghor di ko défendre te nag mi ngeeg benn xam ni kenn mënu koo défendre indépendable un client indéfendable waaw waaw te Joseph Koto ñëpp xam nañu ne ni mu dikkee ci équipe nationale bii ñàkk pexe rek ñàkk pexe ko fi indi waaw waaw Pierre le centre doomu France koo gee la ñu tànnoon waaye tubaab ba ca boppam laa lay wax nii xoolal fooyee fédération sénégalaise bu football tubaab bi mës teg kon tànkam fii ci biir réew maanaam loolee nag nekk ab humiliation toroxal goo xam ne toroxal nañu ko ba ñu ne tot totooral tey ji olee waa fédération nekk fi daal di jéem wut maanaam fu ñu sukkandiku ngir wane daal waaw lii moo waral kon coow la ba ñeng ñeng ñeng patiti patata Augustin Senghor ak ñi moo àndal li ñu war a def daal mooy nangu ne luy njiig ñoom ñooy njàq libération yéen kay ne fédération sénégalaise bu football boobu bee kuréel gi ñu denk wàllum football bi ah ñoom daal mel ne nii ci ay tànk gi Stéphane ak Amara Traoré la nu ah, maanaam dañ ñuy toroxal ba ñu ne tott tottooral sagalu ñu waaye ñu tamit duñ tekk suñ doom ba ah maa la wax lii on nous déshonore mais on ne démissionne pas barke Rasuul laay ah yéene kaay gi ne ginnaaw ba ñu ndetteeloo ci 2010 demuñu coupe d'Afrique demuñu coupe du monde waaw coupe d'Afrique 2012 dik ñu toog premier tour coupe d'Afrique 2013 bi éliminé nañ ñu duñ ca bokk waa fédération sénégalaise du football daal amuñu dara lu ñu taafantaloo lu dul di joxoñ kon ab baaraamuk tuuma El Hadj Diouf tribune yéene kaay na ma ne fiñ làmb nooyu laa la wax laas ne et puis lànk nañ daal di tëdd ca suuf ne duñu tekki seen domba tànk Joseph Kato ci ñi daal buñ demee ba bëggatuñu ma ah man danaa ko mënul nangu kay mooy ñàkkam xaru tabaski gi nga xam ni mi ngi xeeñ ci dëkk bi maarte itaali le pays au quotidien ne fukki fan daal daanaka moo dox suñu diggante kon ak tabaski ba waaw waaye ñàkkum xar gee ngi gën a xeeñ de Ismaïl saw mooy président di conseil national yu sàmmkat yu Sénégal nee na daal li may xelal borom kër yi ah, mooy ñu teel a dem jëndi ay xar nañ teel a dem jëndi ay xar <laughs> alaaji xanaa balaa nga naan naam nefa fa la ma waxoon day xadi caam rek waaw waaw yàlla tegul kenn lu mu mënul bu ma amul lu naan ma wuti lu naan ko alaaji tëjal wala ndey xadi tëjal ci ndey xadi tëjël joojee nag lañ may reye